muy ibadeer càmm moo indi coow téere bi jàngale histoire nag buñ ko dee wax buñ dee buñ dee jàngale histoire dafa war a teg ci dëgg ak maanu nahnu naqussu alayka nabahum bil xaqi alxuraan sax dafa wax ne bu ma lay nett ndax xamoon dama koy teg ci dëgg kon nag bu fekkente ne dañoo wax ne dañuy jàngalewaat histoire réew mi bu ñu koy def dañoo war a fexe ba teg ko ci ak maandu mooy tax mu am njëriñ ndax li mu war a jur kat mooy nit ñi xam seen démb xam seen histoire waaye nag bu fekkente ne dañuy dañoo wax ne dañuy jàngalewaat histoire réew mu jur fitna ci biir réew mi fenn fu ci ne ak daay dafa tàkk loolu amul njëriñ kon loolu war nañ ko xoolaat li nga xam ne nag moo ci fànn yoonu murit ndax man la ca des dama cee maandu ndax ñun ñëpp ñoo bokk luñ doon kenn ko ci nekk am loo gëm sa morom di la ko sàmm leen kon mënuma dugg ci kii lam wax ak kii lam wax waaye li xam ne bind nañ ko ci Sëriñ Tuubaa daal njuumte bari na moom loolu moom ka ko bind boo ko may nit daal na ko dindi ndax nit doo ko soosal wala nga tuumal te am na ci yu garaaw yu ci ne yoo xam ne bu demee ba nit ñi xam ko sama mën naa indi fitna ci biir réew kon loolu moom ne ñëpp xam ne yoonu murit rekk nootul téere ba li fii defaraat ko ndax histoire boo koy bind danga war a sukkandiku ci ay version yoo xam ne yu bokkut lay doon ndax bañ koy bind daayira Rawdu Rayaahiin bi nga xam ne ñoo yor loolu ci yoonu murit bañ ko déggee kenn woowu lañ ñoom ñoo wax ak ñoom ñoom ñu invité leen ca rajo bu njëkk ma ñu dem ca yabal fa délégation ngir ñoom it bokk na ca dañ leen waxoon mooy nii ñu def ñoom na ngeen fexe ba def ko këri julli yëpp Sénégal na ngeen woo ñëpp kenn ku ci ne wax leen seen weesu ngeen boole ko dajale ko pour mu mën a doon lu wóor waaye ñoom nee nañ booba dañuy jàppaat ñoom dara kon buñ jekki-jekkee bind loo xam ne ci histoire suñu tubaab dara am na ci yoo xam ne wérul wala sukkaliwukaay wérul ndax naaj joxe benn firde bu gàtt rek am na ci benn ci ci masdar yi boo xam ne dafa wax ne sëriñ tuuba ci sareha ak diin ji set la nekkoon njëkk maam saa urfa di jëf kon loolu la ñuy junj ñëpp xam nañ ko sa loolu téye ba ka ka ko génne woon ñëpp xam nañ ko euh, sëriñ maodo ture ba coole bare ba nar a indi fitne ci réew mi da leen woo dajale teen ñëpp lakk ko kon bu sukkandikoate coolal njóobdi la am na defereet yu bari foo xam ne dafa wax ne maam Cheikh Anta moo mag maam Thierno te maam Thierno yu bari bari na ci ak histoire yu bari loo xam ne bokk na ca rek ci wax it nee na maam da moo tax Sëriñ Tuubaa génnoon dem jàngi te loolu di maam ci daa wax ne sax université la ndax léppoon ci réew mi yooyu jamono bu nit daa jàng ci barab day dañuy wax ne kii dafa fànnu ci naxu wala arab wala bayaan wala mantiq wala fiq moom na daaraam yëpp day faral jàngale moo tax dañuy wax ne université la kon ñi ñi ngi koy xamal moom ne ko bu fekkente ne bëgg na téere ba ñun ñu nongu ko te ni ñu ko koy diggale ci suñu biir tam nañ ko koy diggale ci kër yi yëpp ndax ñoo ceew batte fenn fu ci ne na dem laaj leen jox ko seen i mbind mu boole ko yam am ñu dóor ko ci biir topp ko bu téere bi leer mu génn ñëpp xam ne amal na njëriñ Sénégal waaye nag mënee su sa bàyyi histoire ndax adduna day dox te mbind du fi jóg buñ ko bàyyee noonu bu continuer jëmbi jamono ñay dikkaat dana jàpp ne histoire suñ tubaab ndee demee kon loolu ñi ngi koy xamal ne ko daal anduñ ci anduñ ci tey anduñ ci ëllëg li fi defaraatuñ ko ba téere bi ci yoon loolu moom ñu ngi koy wax ci kanamu àdduna sépp di ko xam bu fekkente nag nanguwuñ caa delli siwaat ginnaaw boobaa la Cheikh Abdoul Ahad Mbacke waxoon rek lañuy waxaat ba mu fi tere ay tere am suñu gàntu ci Mbacke daa jox taalibe Sëriñ Tuubaa yépp ndigal nee bu ko bu fa kenn dem di fa jënd ba bitig ba fay kon fii itam bu ko bu bu bu ci diisoo amut waxtaan amaat yi bañ déggoo ci boobaa itam dana jël responsabilité xam le ne téere bi nanguñ ko te ànduñ ci loolu daal laa amoon ci lu ci leer la euh, di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan euh, yàlla suñ borom dimbali ñu def jàmm ci réew mi def ak dal ci réew mi def ak déggoo ci biir réew mi def itam ak déggante ci biir réew mi ndax Sénégal kat même te ñu fi dëkk ñëpp ñoo bokk réew mi te suñ borom bi leen fi dajale moo xam ne tax mu dajale leen fi te suñu kilifa yu baax yi fi jëkkoon sàmm nañ ko ba nëgë lépp di rafet kon loolu mm, lépp loo xam ne mën nañ ko ci góorgóorlu ji fexe ba sàmm ko ba déggoo ko di continé ndax koo xam ne mënoo tuxu mënoo jóge fa nga dëkk kooku jàmm rek mooy la la ji ñu ngi sant di gërëm ñëpp wasalaam